zambikum ay journaliste yu muuma bañ a joxe xibaar noppi bañ a bind ay xibaar journée san presse moo nar a xam Sénégal nikki suba ci talaata ji léese ko yéen a kaay na mbootaayu taskatu xibaar yi fañoo ñooy ñaawlu bi nguur gi bloqué seen compte banque yi naka noonu contrat yi nga xam ne fañ koo dakkal li ni mel moo métti taskatu xibaar yi ba tax fa ñuy xëy ñàkk joxe xibaar moo xam journaux yi télévision yi rajo yi kenn du joxe xibaar suba libération ne waaye tey ci altine ji journal yëpp fa ko tuddee média Sénégal yi fañoo noppi ngir ray leen moo tax fa ñu fippu ca biir éditorial ba ña ngay nettali jaar-jaaru ak liggéey yu am solo yi taskatu xibaar yi def ba ci li fal jomaay fay président mooy bi ñu jox résultat yi ci élection yi ak yeneen yi di mel 24 heures yéen a kaay na leen voilà xam na yéen ku bokk ci yéen ku ñuy wax Madiambal Diagne journaliste la moom avocat Ousmane Sonko yi tey ci altine ji fañ koy porter plainte yow seetal fa ñoo wax ne Madiambal Diagne fay saaga Ousmane Sonko fa koy wax wax ju ñaaw fa koy wax loo xam ne dara amu ci di ko sosal li ni mel nag ñoom avocat yi Ousmane Sonko dootuñ ko nangu maître Bamba Cissé na fañ ko yóbbu ci yoon turbine yéen a kaay na ko yóbbuwante la ndax Madiambal Diagne moom it nee na fa leen di yóbbu ci yoon ndax fa ngeen ko waxal lu xamut alintin na xalaat bii baaxut de ba tax ma ngay artu ca biir yéen a kaay ba bés bi yéen a kaay ne mortal combat diggante Sonko ak Madiambal moo xam fi nii avocat yi Sonko yi ne li Madiambal di bind di ko teg ci kaw deru Sonko bi ci lu ne ku daan def ci jamonoy Macky Sall daan ko wax Ousmane Sonko loolu yëpp mën nañoo andiwaat vidéo ya boole <laughs> baax ci Madiambal Diagne de 24 heures yéen a kaay mel ni ku naan man kay faa jàqal Madiambal Diagne fi mu dëgg fa ratax de fa nar a tarxiis daanu ndax la woon won ni na léegi nekkatuñ ci jamono Macky Sall de yoon fay tëddee njaaxaanaay amul làq kenn réew mi yéen a kaay ne ñoom ñaar nag seen xeex bii ba léegi jeexagut enquête yéen a kaay ne faa leen di fàttali Madiambal Diagne mii nag fa bind ab livre ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr suite bote ba am ay a jàll ci a kaay ne lañ ko nar a moom ak doomam bu ñu wax Adama Faye yor yor yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne Pape Modou Fall yorin wu bon ba jéggi doyo moom la yore woon direction bi jëm ci wàllu emploi yow seetal lépp juróom-ñetti téeméer la fa jël jëlin boo xam ne képp ko farak APR ci wàllu politique rek ñu jël la ay millions ñu koy jox ay artistes ak ay comédiens ci xanam gu jaarut yoon te 2022 Pape Modou Fall mi moo fi waxoon ne Ousmane Sonko danger la ci réewum Sénégal le point mel ni ko daan ko bokkuma ak yow gis-gis de gis nga Pape wax fa wane ak arène boobu ñu ko dénkoon te moom sax fa wàññi ñàkkum xëy bi nga xam ne moo amoon ci réew mi maanaam fa jël ay ndaw yu bëri ñuy liggéey ñañu jël affecté leen sànni leen ca Tambacounda muy doyen des juges ma Diallo xattekat ba ñuy wax Mamadou Seck procureur Abdou Karim Diop source a yéen a kaay fa wax ne mbootaay xattekat yi Sénégal fa ñoo ñaawlu li ni mel ak nañ ko doxalee Birahim Seck forum civil ci exclusif yéen a kaay moom fa daal di gàggante njiital mbootaay attekatu yooyu muy Ousmane Chimère Diouf rawatina lu jëm ci indépendance de la justice vox populi ne attekat yi ci ñoom d'accord nañ ci njiitu réew mi Diomaye Faye des di jiite conseil supérieur de la magistrature ministre de la justice bi ñu dénk wàllu yoon moom it d'accord nañ mu des ca seen biir waaye liñ d'accordu te foowuñ ci caaxaanuñ ci mooy duñ nangu kenn ko ubbi conseil supérieur de la magistrature fa dugal ñoo xam ne ay politiciens leen duñ ko nangu leer leneen lu leer ba yegg ca nañ mooy ne askanu Tambacounda fa ñoo wax ne Tamba mooy Dakar seen diiwaan ba ci Sénégal la bokk kon magistrat ku nekk war nañ la faa mën a affecté xanaa ñoom nekkuñ ay nit bañ leen di a yéen a kaay indépendant yéen a kaay na jëwriñ jii di Olivier Boucal moom fa wax ne fa ñoo war a respecté askanu Tamba moytu boo dekwante ci biiru xeet ay magistrat ay fonctionnaire leen mën nañ leen affecté fu nekk te Tamba ci Sénégal la bokk leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne fi Pastef jaar ba jot ci nguur gi moo xam kaddu dëgg yi Ousmane Sonko doon wax réseaux sociaux yi waa bitim réew diaspora bi jàpp bi jàpp ci projet bi ak financement génnee xaalis fukki atu xeex yi nga xam ne Pastef def nañ ko ba jot ci nguur gi moom la la solo jaar ba nee na nday mbiligi nag lu ji njaaga du kenn ku may Ousmane Sonko moom la ndaw ñi gëm bëgg ko ba topp projet bi léeg su ko yéen a kaay na ko hée waaye nag faa bëgg nga def ndàgg gis nga Pastef moomu fi mu toll ne fa ñoo xam problème ca seen biir ndax lañ doon diggee biñ jëlee ci nguur gi ña nga commencé di ci génn de ayaw ah, seetal Abbas Fall fañ koo dégg démb mu wax ne léegi militant